jaaxle ji ab Balla Gaye Tapha waa xam nga ne woon naa la bés bu ñuy ñëw bés bu ñuy ñëw Balla Gaye du changer dara ci lim bëgg wax ne naa la dana ko tooj mais Tapha lan la doon wax bu njëkk nañ ko bàyyee wax ji. mais après il a riposté. Ah, non il parce que ce tapage la Balla Gaye di def warul perdurer fii ba le 16 juillet warul quoi warul déedéet xaalim dama ni combat xaalim sportif nga xaalim la bataille psychologique est essentielle ci sport de combat te Balla Gaye 2 bi ma gis il est bien dans son corps mooy li muy bëre fexe na ba liggéey yaram bi ñu méngoo Balla Balla Gaye dem bi mu touché tu sens que ni que il est mobile par contre ak Tapha yow mii si daan face to face bi li ngay njëkk wax mooy mais Tapha Tine ni mu toll nii nag c'est pas normal. différence bari na trop. c'est normal Khadim dañ ko préparer dans la peau et dans la mentalité d'un bodybuilder comportement boobu la indi comportement boobu lay préparé lamb n'est pas le bodybuilding Khadim. ci la jëboon. waaw d'accord Khadim mais làmb a toutes ses réalités mbër mi muy bëreel mbëru souplesse la il fait partie l'un des meilleurs de sa génération. Balla Gaye 2 dina xool Tapha ci poids bi mu yor di runkum daja ak moom Khadim. jàppoo ni que Balla Gaye 2 dina bëri loolu xanaa bokk ci li ma foog. mais Balla li ma jaaxal bëri commencé bëri dëgg il mu jàpp ngem. waaw non mais mën na ko juumloo ci ndox ndoxtu bëree wala tafaati bëree ba daan boppam te loolu laa gën a ragal mooy mu bëree ba daan boppam dans l'action moo tax ma ne ko ñëw nga à partir de démb bàyyi lépp père mbay ndeewaan la sa bi nu mu tudd mbay ndeewaan naan nag mbay ndeewaan dem école ba xaarim takk ngem. fii ba juillet Tapha Tine li mu war a liggéey mooy contact souplesse contact souplesse contact souplesse contact souplesse contact souplesse la war a liggéey ba combat ba Tapha Tine n'a pas le droit xaadim dolli un kilogramme ci ni mu toll ni mu toll mu ngi yéem Sénégalais yi man d'accord ma ci gannaaw cuun je ne suis pas d'accord ci poids bi Tapha yor na bëri ji le plus rapidement possible na contact yi le plus rapidement possible na contact yi xaaral. waaw il faut ma madame ma laaj la foofu bu ñu xoolee bëri mbëru bu mel ne Balla nga xam ne action action yi muy bëri yëpp ci bu jàppante la est que kuy bëre ku ku mel ne Balla nga xam ne jàppante ci la forme nekk est-ce que laajul nga nga yokk poids am doole ba 10. combat bu njëkk ba dafa jàppante ak moom. non amul contact ci combat amul contact. am na contact mais amul jàppante ngeen. bu ko Balla Gaye defee ndox tu touché ko xam ne lu mu njëkk a bëgg day njëkk day bëgg riposter poids bi mu toll warul jouer ci mentalam mooy su ma ko jàppee làmb ci jeex Tapha Tine ne doit pas avoir cette mentalité là xaarim daaneel punkal mu toll ni Tapha Tine is xam ne moo gën a yom juumloo ko ci kat ab genre yu bëre yu ñàkk fayda yooyu moo gën yomb dafa dafa dafa liggéey volume bu ma dépassé ma mais il faut moom boppam poids ba mu indi woon contre Eumeu Sène xaw na ko coûter très cher xaali nañu wax dëgg xaw na ko coûter très cher parce que seen Sène le plus mobile dans l'action donc il est-ce qu'il doit commettre les mêmes erreurs Karim nañ ma baal nag Bour a un esprit un peu très critique mais Balla Gaye pourquoi mu wuti le contraire de contraire bi la moom kii day wut souplesse kii di wut lourd. waaw léegi pourquoi mu wuti ko parce que dafa bëgg a communiquer la ci yaram bi ak li ci xel mi Tapha déjà duggam ci làmb dafa yéex. Ah, ah, dafa yéex. te wóor na leen ni xaadim Balla Gaye de li bëgg a def lépp daf koy résumer ci deux minutes su ko rombee bu ko tafaatin jàppee nag ko na poos ñu daje ba jege ko mën na koo buddi sax ba ci kaw dóor ci suuf mais tafaatin pour l'instant xaadim pour l'instant bu fekkee staffam ñu ngi may dégg xaw ma dara ci làmb du ma mbër du ma entraîneur bëriwu ma na takk ngemb. man poids bi. xaarim vidéo bi fi dagal. tey le 6 mai. su bëree jee contact tuuti am souplesse bu ñëwee combat bi sera à la faveur de Tapha Tine billahi bu contact gi jee tuut li des ci combat bi ñëw Tapha mooy am faveur ci combat bi. mais côté état de forme Balla mu ngi ci mu ngi ci sur la bonne voie. waay waay waay déggoo man la léegi soppi naa tur bi xam nga Balla Gaye de benn côté la ma neexee mooy daf may bàyyi xel man surtout tous les plans Balla Gaye de saboote naa ko fi ñaawal naa ko fi tuddee naa ko fi Fawzeyni supporter bii de aalu di saaga mais je voudrais que mu mu comprendre wala décortiquer li may wax lu mu doon du yow Khadim Balla Gaye 2 est produit sûr de la lutte sénégalaise Balla Gaye 2 ne mérite pas de disparaître Khadim quel que soit alpha lamb def ko soxla man Balla Gaye 2 mo mokke naa ko ci façon boo xam ne dem naa ba xam ni kii lii ma koy def dugg na ko parce que nag suma waay la sincèrement man ak moom xat di moo ñu boole ak murit la ñuy dund mooy bu ñu wax ci làmb sax bu ñuy wax ci sëriñ bi bu yàggee ñu ànd jooy man ak moom pour ñi muy pour ñi seetaan xam ban relation laa am ak moom mais làmb duma ci am langue de bois ak ku mën doon laa jël sama soxna yi ma nekk maa gën a lewet ndox mais quand il s'agit de dire la vérité yow Xaadim xam nga loolu ci man yaa ngi nga a yàgg ak man dama koy wax comme ni ma ko gëmee li ma bëggoon mooy Balla gay 2 va se préparer Balla Gaye 2 mu ñëw gisoo biir gisoo ay fàmb gisoo dara kon kay mérité na ma tuddee ko si mbaala si mbaala roi il est sur la bonne voie te Tapha Tine bu mu su sous-estimé Balla Gaye 2 bool booli xaani bu ñu sous-estimé Balla Gaye 2 maa ngi koy wax rek de combat bi am na fu mu ko yegg am na fu lum ci bëgg te il a tous les arguments pour mën a atteindre son objectif. dafa di Sa Thiès bi am démb lan la koy yokk ci combat. non da koy force Sa Thiès daan na mois de mais Balla Gaye 2 daan na juillet que Double Less tas buy ñëw effectivement war na indi loolu mais bu mu ko bëriwaalee. déedéet bëri ak tafaati stratégie dëgg la laaj. Tapha Tine bu ko Balla Gaye doo juum loowul munu ko daan su ko diree ko loowul munu ko daan su ko bëri loowul munu ko daan parce que ëpp ko doole mais en tout gaa daal Balla Gaye de il est bien dans son corps Tapha su ma amee lu ma koy dolli mooy na takki njamb dem écurie ba bëre ak xale yi fii ba mois de juillet bu bëggee am dara ci combat bi. macha allah am na toll solo buur euh, di la sant bu baax di la gërëm euh, j'espère que tey amateurs yi am nañu contentement bu baax ci analyse bi nga def nga ko si diggante Sa Thiès ak Eumeu Sène bu ñu bàyyi la nga taagoo waa Karim gën a kontaan rek xanaa di la di la ziar di la ziar waaw di ñaanal ñëpp quoi. macha am na solo merci jaajëf buur.